kon teggin ak jikko rek mu am solo te macha allah loolu lañu gis ci moom ku mu dajeel ku nekk dana jël cëram jël dara darajaam sagale la kon nag faqidu shay'i la yu'tihi kon foo fekk kuy cërale rek borom cërale te moom loolu la ko yàlla sedd te dafa nekk nit koo xam ni dafa am bind bu am solo bu sunu wejur wu baax wa joxoon muy wéjuru sëñ Mansour mi toog di Mame Dabakh ah, ndax ndax nu ñu waxoon ni bu dee nii yàlla daf la nattoo ngay boroom xam-xam danga ame misaalu garab gu sëf meññant ne ne garab gu sëf meññant nag lu meññant mi dolleeku dafay gëna a wàcc yombalal boppam ña ko soxla waaye meññant mi du dolleeku muy senkale ku jëm kaw loolu macha allah yebbe woon nañu ko kon loolu lañu gis ci shérif gis ko itam ci mbokk yi nga xamante ne ñoo mel ni moom euh, di gërëmit it sunu doom day ji di alhaji si di ñang macha allah sagal nañu itam ndax bu ñu ñëwoon itam mbokk yi sedd ci moom leneen euh, du doon sax ci ñun waaye siggil na Sénégal waaye siggil na itam askanu lébu macha allah kon yal na yàlla yàggal sa taxawaay kon dal li nga xamante ne moom la ñuy toftal rek muy lu gàtt ci bëgge gi nga xamante ne moom la saxaaba yi bëggoon yonent bi sànq sëñ Sakho wax na ko ci jigéen ju ñàkk jëkkëram ñàkk càmmiñam ñàkk itam wejuram ñu koy tudd xansa fekk lu jiitu ci jamono jaahiliya dafa ñàkk benn càmmiñam daldi ko jooy at tinja ka at ba daan di benn bayit naa lawla kasratul baakina xawli la qataltu nafsi bu dul woon ak bari ñi may feelu di ma jooyle sama càmmiñ bi ma ñàkk dana xaru fekki ko booba duggagul ci lislaam waaye bi leeru lislaam duggee ci xolam ñu tàgge ka ñett ci benn jant mu ne kullu musiba baadaka saxira kon bëgg yonent bi ak leer gi yonent bi defoon ci moom macha allah am benn jigéen boo xam ne itam euh, ñëpp war nañu ci roy ñu koy tuddee ummu ammaara ci xeexu uhud bi nga xamante ne yonent bi ñëpp daw nañu yéefar yi wër ko di ko jéem faagaagal benn jigéen bu ñuy tudde ummu ammaara moo taxaw ci booru yonent bi di ko protéger ba bi yonent bi di daanu dafa daanu ànd ak moom li ñu konte ci yaramam ci jam-jam mu xeej ak fet dem na ci fanweeri jam-jam ak ñaar yonent bi daldi ko ko seedeel ne maltafattu yaminan wala shimalan illa wa ana araha tuqatilu duuni mu ne ba mu tàngee ba metti mu ne fu ma geestu sama ndeyjoor wala sama càmmoñ du ma gis benn góor umu amaara rek lay gis kon nag jigéen jooju ku wax ne góor góor lu nga ko tooñ ndax bi góor ñépp dawee moo taxaw ci booru yonent bi di ko protéger waaye ba mu sottalee yonent bi daf ko laaj loo bëgg mun ko xanaa ma soppa la ànd ak yow ci àddina waaye cofeel googu man ak yow ba aljana ma wettili la fa yonent bi di ko ñaanal allahuma ij'alha min rufaqai fil janna di ko ñaan nga ñam dal ci dënnam yàlla soxna sile nanga def mu di kenn ci wéttali ya may wéttali ci aljana kon nag loolu itam euh, misaal mu am solo la ci bëgg gu ñu bëggoon yonent bi abu Aboubacar dafa natt boppam ci yonent bi mu ne suma génnee àddina mu ne na ngeen romb rek ci raw du yonent bi bu bunte bi ubbee te kenn ubbee ko ci lu ngeen gis mu ne na ngeen ma denc ci booram waaye su dee ne ubbeekuwul nag na ngeen ma yóbbu ci baqia fa ñu yóbbu jullit yépp kon kooku xamoon na tolluwaayam ci yonent bi waaye ba ñu ñëwee jubbunte bi rek yonent bi ci boppam ci li ñu mën a wax ndax benn haatif moo nañu dégg mu naan Habib soppe mu ngi gàttandu di tatagal soppeem kon ñooñu xaatif boobu ñu dégg ñu rafet njorte ne yonent bi la wala keneen waaye soppe na ngeen seede mu ngi gàttandu di tatagal soppeem kon ñooñu dafa am fu ñu tolloon ci yonent bi sànq sëñ bi tudd na ko anas dafa daan di bëkk néegu yonent bi waaye dafa demoon bay dem ca gannaaw kër ga am benn gaynde bu ko bëgg a faagaagal waaye ban identité la ko jox daf na ko ana xaadimu rasul man may ki nga xamante ne may jëwrinu yonent bi di ko bëkke neegu gaynde gi dafa ñëw boof ci tànkam si jotal ko kon nag lan moo ko jox boobu martaba tolluwaayam ci yonent bi fa la wax dëgg yàlla ñu ngi ziyaara sunu sëriñ bi sëñ Mansour di siyaar imaam Dieye ak kilifa yi ñu fi fekk yépp ñoom Tafsir Tall ñoom euh, sëñ euh, sëñ Baro ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaar di feddali sunu kóllëre ak ñoom ndax jataay yu mel ni itam daje ak doomu soxna yu baax occasion la kon ñu ngi fasante ak ñoom kóllëre ci turu kër gi ñu bokk di këru Seyna Limaamu ndax kële toog di maam di basalay sëtam la sëñ Mansour ñu ngi la koy présenté surtout Seyna Limaamu la wax dëgg yàlla kon ci turu kër gi ak ci sunu turu bopp ñu ngi ñëw di teewal këru Seyna Limaamu yëpp ci bésu Mouhamadil Amin Aydara bi di ko jotal ziyaara ak nuyoo xalifi bi Seydi Abdoulaye Thiaw yal na yàlla daaral ko daaral bépp kilifa diine wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh asalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di sant te dilen di leen massawu seen fa tabarakallah man maa ngi tudd Al hasan bun sherif Salman dom la rak la jarbat la ci Chérif Mouhamadul Amin maa ngi ànd ak sama soxna koo xam ne tamit même chose la ci sherif Mouhamadul Amin ñu koy wax soxna Gogo dara mu ngi nii ci mu ngi fii ci mbooloo mi mu ngi fii ci toogaay bi mu ngi fii ci jotaay bi ak sama benn rakk boo xam ne mu ngi tudd Cheikh Ibrahima Ly koo xam ne jarbaat la tamit ci Chérif Mouhamadul Amin ci wàllu ndeyam mu ngi nii toog ci jotaay bi ah ñun nag ñu ngi yëkkati suñu kàddu di ko waxe ci turu suñu mag suñu nijaay suñu papa Chérif Mouhamadul Amin Chérif nag ci làmmiñam mu ngi sant ulama yi aima ñi fi toog kenn ku nekk mu ngi lay wàcc ci sa wàccuwaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne inzilu nas inzilu nasa manazilahum wàcc leen nit ñi seen wàccuwaay maqaama walla daraja bu yàlla bu leen yàlla mën a jox jox leen cër jooju jox leen maqaama jooju mu ne ci làmmiñam mu ngi leen jox maqaama jooju mu ngi leen jox cër jooju te yëg na ko ci biiru xolam kon mu ngi leen di ñaanal ah di jiital ci cant gi sëñ Mouhamadul Mansour si koo xam ne mu ngi nii toog léegi léegi lañ ko doon déglu sëñ bi Chérif kontaan na mu ngi lay sant di la gërëm yokk Sayida Umu Salimata bu Cheikh Ibrahima Niass mu ngi nii toog Chérif mu ngi lay sant di la gërëm ak Cheikh Ibrahima Baye mu daam mu ngi nii toog Chérif sant na la gërëm na la ak imaam Mohamed njaay ak Alhaji Bamba Sall ak Kamara mu baay ak doomu ndeyam koo xam ne foo gis Chérif di nga ko fa gis mooy sëñ Cheikhouna Mbacké mu ngi nii toog yàlla xam na ne cofeel bu mu am ci shérif moom la ñu joxoon kàddu gi mu waxal ñu ci suñu tur ci suñu làmmiñ waaye ndeysaan mu gàntu rek ndax oyofte fa tabaarakallah waaye ñu ngi koy wax ci turam ci turu shérif shérif gërëm na la cheikh na ak sëñ Muntaka Saaxo ak Cerno Ahmed Ba bu Mbambilor koo xam ne mu ngi jóge ba Sénégal shérif mu ngi leen di sant di leen gërëm mu ne ah cant nag munul kii sans mu sant waa Rhode Island wax dëgg yàlla moom Rhode Island teg nañ ko makaama boo xam ne moom xamul sax fan la toll jox nañ ko cër yég nañ ko wallahi lazim moom mu ngi leen di mu ngi leen di tiitarlu fa tabaarakallah ndax teraanga ak cër bi nga ko jox mu ngi jiital nag ci waa Rhode Island koo xam ne moom la yàlla jiital ci ay loxam mooy soxna Aminata Chérif Haydara koo xam ne moom mooy soxnam moo ko jàppale bu yëf yi ñëwee ba fii loxam a ngi ci fa tabaarakallah mu ngi koy sant di leen seedal na tamit wallahi al azimi bekk na ci soxna ami xolam kontaan na ci soxna ami mu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may njaboot yu barkeel bi darajay nabil mustafa moo xam lu mu bëgg ci néegu seem yàlla na yàlla defal bi jaahi nabil mustafa mu ngi sant Abdallahi Diop ak soxnam Aïchatu Taal ñoom tamit wax dëgg yàlla moom ñu ngi koy jàppale saa yu ne fa tabaarakallah ci gan yi ci programme bi ak ci lépp ak aji faati Ndour ak Moussa Koulibaly ak Aminyang Marie Keller Muminyang uminyang Marie Keller Mustafa Mal Mambay Yasin ak borom Abi Job ak borom këram Maymuna Famara Soda Lay Jar jar gandour aman Ndimbalan yama Jame Soxna Mati ak borom këram cherif mu ngi len di sante di len gërëm di len ziyara fa tabarakallah kontan nañu yal na yàlla fay bi jaahi nabil Mustafa defé nak incha allah ñu jokko shérif mu defal ñu ñaan fa tabarakallah ñu daal di yéewéegu macha allah kooku may xayru xalqullah mani billahi ñoo bëgg rasulullah ñaari weer mu def ko mu daal di dal jabal la ba ñu ko yaa rasulallah xëy dama mi woon kenn bañul nabi ndekete yoo am na ñu bañ nabi ñoo ñu bañ ñu nabi dañu xamul nabi ñoo xamul kuy yaa rasulallah man yonente yàlla yu rusul la moom سفر جميل ديرو جنو قبل أن جميل أدركوكم يا رسول الله أن يا الله إسماعيل موت يا لاني وربا يا بني صدق جدا بني إني خلقت لبني إسماعيل كوكي رسول الله من سفر وجوت راني من يسخر وجهته عندكم من يسخر وجهته عندكم لتمسك بيت الجلند لا يبقى في متى وترند ويلا لغة جميع رسول الله من رسول الله ngi sant ñëpp sëñ Cheikhouna Mbacké ñu ngi lay sant di la gërëm yal na la yàlla defal barke xaadimu rasul man li may wax rekk mooy di sant waa kër Alaaji Malick Sy di leen sant di leen ñaanal ndax jàmm bi bi may commencé alhaji moo di Njaay yal na la yàlla defal jàmm sëñ Ibalaay dama dama kontaan bi jaxasoo waa kër alhaji Malick ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax a baax a baax kontaan nañ ci yéen lool ndax lii yëpp gannaaw yàlla ak yonent ba yéen la yàlla defal jàmm moo tax ma ne woon naa sedd lii ci kanami mbooloo mi waaye Chérif Al wax na liñ bëggoon wax lépp sëñ mbay ñi ngi ñu ngi lay sant di la gërëm sëñ Saliou sàmb ñu ngi lay sant tamit ñaan bi ngeen boole ci borom palaas bi ndax bi ñuy jël palaas bi dama ko wax ne li ma la li ma bëgg mooy nga yombalal ñu bañ mun a am palaas bi bu neexee yàlla liñ ci bëgg fas mooy buñ jëlee place bi ba def ci guddi yonent bi sallallahu alayhi sallam bi ñuy tuddee cheikhul islaam ndax balaa déwén nga xam ne yow ci sa bopp joxoon nga ko yonent bi sallallahu alayhi sallam mu jaarale ko si cheikhul islaam ba mu egg si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndeke loolu moo tax tamit bëgg nañ yéen ñëpp ngeen boole ngeen ñaanal palaas bi yàlla def fi jàmm def fi ubbite ñaanal nañ ñëpp nag di ñaanal yaay daara bu baax kontaan nañ ci sama yaay ndax euh, dama ko mus a présenté sama yaay daaw jéeg sama yaay ne ko yow de comme que sa doom ji nee na yow yaay yaayam sama wàll ak sa wàll yëpp may naa la ko depuis boobu ba tey nag keroog bi may wax ak sama yaay barki démb mun ne ma ne naka sa yaay ma ne ko mooy togg añ yi bu neexee yàlla mu a ma ne kon boog bu ñëwee nuyul ma ko duma leen oon ak ba mu paase ndax sama xel dal na ndeke nag yaay ñu ngi lay sant di la gërëm li ma ci xaw a jaaxal rek mooy toujours taaw bi moom mu ngi New York rek Daouda Sarr mooy taaw dinañ oote nag guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam New York ñu seet nag ñu wax nag diggante ma nag Daouda Sarr kan mooy nekk taaw incha allah ñu ngi leen di sant di leen gërëm as ma lay sant bu baax a baax a baax a baax di la sant di la gërëm bu baax sëñ libaas kontaan naa ci yéen ndax sëñ libaas ku baax la ni mu noppee nii nii la noppee amul lu mu defut ci lu baax waaye nag mu ngi ànd ak ngoram ñëpp ñu baax lañ waa Rhode Island ñëpp ñëpp ñëpp ñu baax lañ dama mënut a wax moo tax ma ne Chérif nag gërëm jigéen yi ñiñ tudd nii jàpp nañ lu nekk def nañ ko lu nekk def nañ ko man sama bopp dama leen rus waaye nag yàlla na leen yàlla defal waa kër Cheikh al Islam wallahi kontaan nañ lool kontaan nañ lool ami dañ koy ñaanal rek ndax ami jig na ma jig naa ko waaye moom tamit jig na ma اللهم صل على محمد وسلم ci guddi gi suñu démé jëfé ko mu ngi melni texe nañu suñu adina ak àllaaxira yëpp euh ngeenel amna fi li fi ruus alhamdulilahi rabbil alamin suñu ko jëfé raxas xol yi jël jikko yi nga xamné wax nañu ko su yonent bi ñu sol ko jëfe ko ak suñu digënté su suñu biir rek alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi aljana fekk ñu ngi dund kon ñu def fatiha salatul fatihi ku su nekk nak nga góor góorlu nga raxas sa xol ba mu set wicc su fekkente ne am na loo xam ne naqari woon na la sa biir xol am nga ay xalaat yu sew si sa biir xol am na sa biir kër ga koo mere am na sa quartier ba koo mere am na sa dëkk ba koo mere fexeel nga génne loolu yëpp sa biir xol nga dugalaat fa yonent bi sallallahu alayhi wa nga fas yéene def li ñuy wax recette recette mooy soo amee sa ordinateur mu mu dem ba jaxasoo da nga bés benn bouton rek mu ne defaat à zéro lii sëñ bi wax léegi léegi sëñ Mountakha wax léegi te sëñ Abdou sëñ Mansour wax ko léegi ñu góor góorgóorlu delluwaat à zéro commencé waat à zéro suñu jógee fii dem euh, def def jikko yi nga xam ne moom la ñu amee woon képp ku aajom fajul nag si yow la ndaxte jotaay bi moom matale na yëpp fatiha salaatul fatiha yàlla tuf juróom-ñeenti yoon اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قال وخاتم الناس وقناص الحق الحق الحاد إلى أسرارك والسماء وعلى آله حق يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف اللهم صل على صلاة فائدة جميع صلوات خلق الله دائمة بدوام الكل حمد مضروبة في كل عدد في علم الله بدد ما في علم الله وعرفنا بها إياه معروفة أبدية بمحد فضلك يا الله يا واحد يا فرد يا صمر يا هو يا لطيف يا خالق كل شيء يرزقك وزدني الله كما رزق محمد رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين